jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi saxoo safoo li nga xam ne mooy suñu plateau bu yànj bi nga xam ne lépp luy actualité réew mi ñun lañ cee xaar ngir jàngat yu am solo yi nga xam ne moom ngeen fiy dégg waaye nag bu ngeen bàyyi xel ni jataay bi boutique solution moo ko maye boutique solution nag xam ngeen ko sax léegi jaratul ñu leen di wax naan xooj ñu jàmb ñu li saxaaru ñu seetuñu euh, ñetti médicament la ñu amoon am na ñaaru ci dellu si bokk ci mbir yi benn bi mooy bii mu ngi toj àdduna bi mu ñi nga xam ne jigéen yi nga xam dañu bëgg taar ci wàllu ange wala sax ween bu yàggul Sénégal doon ngeen dégg ñi bawoon woon bitim réew doon opéré jigéen ñi ngir doon yokkal seen i gannaaw jaratu ko ndax plante yi lépp la man tax na ba produit bii nga xam ni pommade bi ngeen di gis def ci ay lool dina ci dikk incha allah naka noonu beneen bi ci dooleeku mooy bu garabu bëñ bi nga xam ne bu sa bëñ méttee ba ngay waññaaru ñaaru nga koy jël rek baxal góox daal di dëngalu wet gi mu nekk lu toll ci fukki minute nga yàbbi soo ko defee ci suba si def ko ci ngoon gi su fekkee amul borom bopp moom dootoo dégg bëñ bi metti ba àddunay tukki loolu yi mooy li ci dooleeku waaye hémorroïde siti ak kattan la ñu xàmmee boutique bi ñetti garab yoo xam ne bu ci nekk efficace na lool ba sénégalais yi ñoo koy waxal seen bopp dinañ ci ñëw gërëm suñu partenaires yi nga xam ne ñoom lañ àndal ci bitim réew muy soxna ummi soxna Mariane ak ki nga xam ne mooy yayaa ca Gàmbi euh, di xaar ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi waxtaan ak ñoom ngir naka la ñuy defit ba Sénégal yi nekk bitim réew jëratul ñuy ñëw ba Sénégal waaye mu ñu yem foofu la ca biti réew euh, photo bii ngeen gis sama ginnaaw Bassirou Diomaye fay la xam ngeen ko ginnaaw Bougane Gueye Dany révélation yi mu defoon ak ak accusation yi mu def ak wax yi mu wax ak ba Sénégal yi nii dafay victimiser wu ñii ni sax dossier politique la ku ci mel ni Ousmane Sonko wax na ko Bassirou Diomaye Faye moom dafa mel ni ku enfoncé ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany dafa mel ni daal suñ ko dégloo Bougane dafa ngang rek ñepp dafa mel ni yëf am na lees waxut euh, la ca des mooy euh, lu jëm ci wàllu itamit Bougane Gueye Dany ba léegi woo na journaliste yi waxtaan ak ñoom lu jëm ci gëm sa bopp gi doon dajale xaalis ngir jàppale ko ci élection yi ñu jékki-jékki gis journaliste yi daal di buude lu tax parce que 15 heures lañ leen joxoon rendez-vous 18 heures ñëw nee nañu nag ci ay journal Bougane dañu leen ku yàkkamti mën ngaa dem mu mujj fa des Zik FM Sen TV ak euh, li nga xam ne moom mooy La Turbine loolu dinañ ci ñëw beneen bi ci des mooy kii ngeen gis sama ginnaaw mu mel ni ku takkiy fer génn na nee na du ay fer waaye dinañ ci waxtaan ginnaaw bi mu waxee ni moom seen tiir bi ci la loolu nekk incha allah ñu daal di ciy waxtaan xaritu Serigne Sidi baa ngi nii moom Alaaji Sanjoogu Mbeng euh, di xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke ca Touba maa ngi lay nuyooti. bu ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew ak mm-hmm. am ci ñëpp mbégte ak kontaante. Mm-hmm. Euh, nuyu bu baax sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoul mm-hmm. di ko ñaanal mu yàgg fi lool Mbacke. te ànd ak wér. di nuyu kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñu ngi taamu seen boutique solution eh, ba nga xamante ni bi fi lañ yaakaar ngir amee fi saafara ci seen tawat yal na leen ko sunu borom di defal ñi ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñi nga xam ni taamu nañ boutique bi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñi ngi ñuy jàppale ci liggéey bi soxna ummi comme niñ ko waxee. waaw ñu ngi rafetlu bu baax ànd bi ñu ànd ak moom. Mm-hmm. soxna Mariane aussi tamit ànd bi ñu ànd ak moom. Mm-hmm. ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Yaya. Mm. ak Ibrahima. mi nga mm. xamante ni bii tamit soxna ummi moo koy fournir. Mm-hmm. ñoom ñëpp vraiment ñu nekk ñoo xamante ni bii. Eh, ñi ngi ci liggéey bu am solo. Hmm. sunu diggante ak ñoom. Hmm. vraiment ñuy rafetlu ni nga xamante ni bi noonu la liggéey bi eh, di doxee. Hmm. parce que principe yi nga xamante ni bii moo ne fii moo ne ca ñoom. bu ñu leen déggee ñu wax rek nga gis ni ni ñuy doxalee fii ñoom i tamit noonu lañ doxalee foofu. pour wan ñi nga xam ne ñooy clients yi ne leen ñun duñu seet te duñu docteur. waaw ñun dañuy jaay garab lii la dal lan la. Mhm. ñu ne lii la ñu xam ne am nañ garab gi ñu ban la koo jaay. Mhm. waaye nag duñu ñu kenn. Mhm. te it ñoom it loolu lañ nekkee. donc ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm. parce que mënoon nañ cee dugal lu ci bokkut. waaye boobu ba naka nii euh, retour yi ñuy am yëpp. lenn la la ñuy wax lenn la. donc soxna Oumy Ibrahima. ki nga xam ni moom la wax soxna Mariane. ak ki nga xam ni moom la ñuy wax Yaya ca Gàmbi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di wax ni. am na ku ñuy waxal te sori nañ lool ca Amérique. waaw vraiment mu préparé sax pour def commande am. Euh, ku Espagne ki tamit fi mu toll nii. GP euh, lay kii rek. pour daal de yóbbu li nga xam ni mooy commande parce que moom tamit pare na. pour def commande am donc euh, il paraît que daal fi toll nii daal. jamono ji que du ñaari yooyu sax parce que nag waaw est-ce bëggee xaar. xaar xaar réew yëpp. Mhm. baa bu yàggee du du du kii du këfin. waaw parce que actuellement il faut que bu ñu duggee ci ñaari réew yooyu rek. bu ñu paree Amérique ak Espagne. Mhm. mën nañ tëjandi. ba ci mhm. kanam parce que tamit euh, sinon sax mën nañ ko bañ a àttan yëf yi ni muy doxee. donc il faut que ñu daa dee teeyaat tuuti ba gën a xoolaat yëf yi. parce que war nañu def ay annonces yoo xamante ni. yuy jàll ci rajo ki tele la. Mhm. aussi ak internet bi donc euh, te tamit loolu war nañ cee jublu war nañ mhm. cee commencé jublu. Mhm. defar ko. parce que nit ñi xam ñi nga xamante ni ñoo ñu représenté. Euh, ci euh, dëkk yooyu yëpp. vraiment yi ñu représenté bu ko defee. après ca kanam kanam ñu xool nag yeneen yoo xam ne ñu ngi koy def. macha allah voilà. jërëjëf Alaaji ci lu am solo loolu le noonu la kon yéen ñi ci diaspora bi. te bëgg a euh, jëflanteeg solution bu dee ñi ne ci France jërtul ngeen di agsi numéro soxna Mariane mi ngi noonu ñi nekk Dubaï euh, Maroc ak ca Italie jërtul ngeen di ñëw Sénégal numéro soxna ummee ngi noonu Euh, bu dee ñi nekk gambi jërëtul ngeen di ñëw fii ci boutique bi parce que ku ñëw it alaaji waxoon na la ko duñ la mën a jaay parce que a ma nga fa euh, noonu la ñuy xaaree ñeneen ñi alaaji incha allah euh, bala ñoo nag ñëwaat ci boutique bi waxtaan ci li ñu bëgg waxtaan rek ñu daal di koy door ak actualité yi dinañ ñëw léegi ci boutique bi incha allah wax leen pomade beeg ak yi ni mel alaaji Bassirou Diomaye Sénégal yëpp dégloo fan yi passé am na sax ñoo xam ne xawoon nañu yërëm bugaan ndax ña fa nekk di liggéey parce que ña fa nekkit ay borom kër lañ ñëpp yërëm leen ca la nar a xew ndax la leen toog di leen xaar mais bi Basiru génnee daal dafa mel ni dafa am yeneen yu yeewuwaat ci bopp yi mu mel que ni daal ba léegi am na ñu doon dute ni Bougane mii kat day nekk ci dam yi waaye euh, Diomaye Faye da koo gën a kii dëggal. waaw xam nga bon Basiru expliqué na. Uh-huh. loo xamante ni bi jàpp naa ni moom moom ma nga nekk ca secteur yooyu lu jëm ci wàllu impôt affaire yooyu. ci lay uh-huh. liggéey. Uh-huh. d'après li ma xam. donc yu mel ni li nga xamante ni bi moom la Bougane di yuuxu waaw euh, dafa mel ni lam ca wax joxe na ci ay explication yoo xamante ni mhm. euh, leer na bon ku ko déglu di nga dégg kàddu yi nga xamante ni bi moom la yëkkati mhm. waaw bu ko defee euh, loolu day wane rek ne mhm. maanaam moom dafa dàq lenn politique wane ni nekkut ci mbir mi parce que ñoom sax sécuriser nañ pour bañoon rek ñu daal day yóbbu affaire bi ci terrain politique. waaw donc te loolu mu wane noonu finalement gis nga. Mhm. ñenn ci sénégalais yi jàpp nañ ñi lu jëm ci wàllu politique a ngi ceeg yu mel noonu. Mhm. xam nga lu jëm ci wàllu impôt yooyu. Bougane euh, bërki Dembo Ndiaye amoon na fi jafe-jafe ak ay Barthélemy mhm. ci wàllu doo fay lii ak doo fay laa. ci mairie donc bu ñëwaatee encore tamit ci lu mel nii. Mhm. ñu déggaat lu mel noonu tamit aussi day mel ni rek. Mhm. Euh, maanaam fañ ko doon la xewoon ca Barthélemy moom mooy ñëwaat fii. donc loolu mooy li nga xamante ni bii moo ci ne man daal jàpp naa ni daal. Euh, xoñoñal bi nga xamante ni bi moom lañ tuddee xoñoñal ndax politique nekku ci ginnaaw man jàpp naa ni tamit am na lenn politique loo xamante ni ma nga ca gannaaw lenn politique loolu nag fa ma tegoon sama tànk duma ko reculer man dama jàpp rek ne am na loo xam ni président Macky Sall bëgg na ko dégg muy Bougane Macky Sall te loolu nag gars yi seetlu nañ ni depuis quelque temps affaire yu bari jaar na ci Sénégal. Mm-hmm. loo xamante ni bii kat yërmande la nit ñi toppee nit. Mm-hmm. gis nañ fi sénégalais yi topp fii Moustapha Niass. Mhm. c'est parce que dañ koo yërëmoon. gis nañ sénégalais yi topp fi sa Seck c'est parce que dañ koo yërëmoon. Mhm. gis nañ fi gars yi topp fi ki nga xam ne mooy président Macky Sall c'est parce que dañ koo yërëmoon. Mhm. sénégalais yi doon wax naan nañ càmbar Karim dem nañ ba mujj gi ñu yërëm Karim. mu mel ni yërmande googu. moom lañ bëgg bugaan am ko. maanaam sénégalais yi yërëm ko pour topp ci li nga xamante ne bi mooy ci ginnaawam. donc loolu nag euh, ndax dana ko am. wala du ko am maanaam ñooñu ñëpp xam nga la ñu amoon yërmande leen ko may. Mhm. man damay jàpp ni kenn rek moom moo fi am loo xamante ni bi Sonko mi moo fi am ko loo xamante ni nekkul yërmande ko may mais discours yi muy discours ak projet yi mu teg mhm. euh, daa di wax askan wi ne fii laa leen di. bëgg a yóbbu réew mi ak nii laa bëgg a yëf yi demee mhm. nit ñi ngëm lañ ko toppee mhm. mais toppee wuñ ko yërmande mhm. léegi nag bëggat nañoo laxasaat buggaan ci liñ daan toppee sénégalais yi muy lu jëm ci wàllub yërmande pour man ba léegi loolu man mënuma gëm ni loolu nekkul ci li nga xamante ni bii mooy mbir yi waaw man moom mënum loolu moom mooy li nga xamante ni bii yëf yi daal jàpp nga ne am na ci lees waxul am na leneen lu ne ci suuf loo xamante ni parce que def na lu ne pour nekk ci kaw te boo seetee Bougane adversaire am bi gën a rëy Ousmane Sonko mooy adversaire nit ñi ñooy xeex ak Macky Sall mais moom xeexut ak Macky loolu mooy li nga xamante ni bii man damay wax parensaay lan moo tax nit ñi lii moom gisuñu ko man loolu moom dafa leer naañ nañ ci man mmh, mmh, waaw donc nag nit ñi dinañ ne da ngaa contre Bougane da ngaa def nii mais. du question faral dégg ñu ne alaaji est-ce que amul ay règlement de compte wax dëgg yàlla man awma benn règlement de compte ak Bougane mmh. wax dëgg fa yàlla. sénégalais la comme sénégalais yëpp. waaye nag samam xel ci boppam man daal ak ay jeu politique am. man nii laa jàngatee ay mbiram. mais nag wax dëgg fa yàlla du lenn lu ma ko jàppal. macha waaye lii mooy li nga xamante ni man moom laa gëm ba ba may gis leneen nag. Mhm. jusqu'à preuve du contraire parce que dafa am yu bari yoo xamante ni bi mhm. xew na. Euh, waaw ayca mi ngi noonu bala ñoo ñëw sax ci solution alaaji duñ ko sori ndax am nañ jataay jataay bu mu woote woon ngir daal euh, fësal li ko ay soppeem wala ay militant am dajaleel war ko ko jox mu toll ci 13 million gannaaw ba nag xaar ba yàgg na ci journaliste ya wekki nañ seen i micro dem lenn ca journal yi ñu dégg nag nee nañu buggaan daal moo ni leen euh, ku mu neex mën ngaa dem ku fi toog yaa fi bàyyi sa bopp loolu itamit noo ko gisee buggaan di journaliste woo ay journaliste ñu buudee ndajeem pareegul waaw loolu xam nga moom dafa fàtte ni jiitewut journaliste yi. waaw journaliste yi dalee na woo jox leen heure ñu respecté heure ñëw toog di ko xaar. Mhm. mu tardé li jiitu mooy jéggulu su hmm. fekkente ni bii euh, da ngay wax rek. Mhm. te yàlla tax. Mhm. mooy jéggulu leen ci retard bi nga xamante ni bii moom la parce que moo leen waxoon quinze heures ñëw dix huit heures. donc la fait que ba pare. wëlbatiku naan leen ku mën a toog toog ku mënta toog dem. loolu moo naqari journaliste yi ba ñu jóg dem seen yoon. parce que loolu nag ku aspiré bëgg a jiite réew ëllëg. Mhm. yow demagoo commencé doxalee. waaw mais mais alaaj journaliste nag tas xabaar mooy liggéeyam. bu dee yow fi nga ñëw da ngaa ñëw pour jël xabaar. waaw même bu doon borom day fanaan nga toog xaar ko lu waral buudee. lu tax dem. non non non non non non loolu li nga wax noonu journaliste tas xabaar mooy kii xam nga ki toog. waaw mën nañu mën na argumenter comme lii d'accord naa ànd naa ak yow ci ki nga xam ni toog na fa mu wax loolu. Mhm. ki dem. Mhm. man ànd naa ci demam. parce que wax dëgg fa yàlla le fait que waa ji waxoon na la lii. Mhm. te xibaar gënu faa rëy mu leen wax. après ban xibaar dafa génn. liñ la wax noonu looloo xibaar bi bañ. bañ ko amee xibaar ba doy na. xibaar bi dem nañ loolu lañ wax moom la presse bi yëpp xëy bind. ku bëgg a toog toog ku bëgg a toog dem loolooy xibaar ba di. <laughs> alaaji <laughs> ah, ah, ah, leneen la la fa nekk xibaar. waaw déggaatuma ko dara. à part treize millions yi de. waaw ku bëgg toog toog ku bëgg a toog ku bëgg dem dem. loolay xibaar ba gars yi bi ñu jógee bi ñu déggee loolu xam ne xibaar ba jeex ñu dem seen yoon yóbbu xibaar. <laughs> wala waa ji da am lu mu teg seen i loxo. <laughs> en tout cas li am solo. Euh. mooy daal bi nga xëyee. déggaatoo leneen lu dul ñu ne treize million euh. ku bëgg dem dem ku bëggut a dem toog loolay xibaar. xabaar baa ngoog. ayca <laughs> mi ngi noonu jërëjëf loolu mooy xabaar bi kon jaajëfal leen bu baax a baax yéen mbokk yi ñu ñëw nag bala ñu ñëw ci Sidi Diop ak fer yi ñu ko doon tuumaal donte ni génn na weddi ko ban jàngat lañ ci def ci façon soli ni incha allah alaaji bu mel ni. pommade baa ngi nii bii mooy euh, bii taaral jigéen. waaw da nga def nag liggéey boo xam ni dafa am lu baree bari lu ma jàngalaat. Mm-hmm. ndax man nag dama foogoo ne alaaji bi ñaan solution ci ay wax rek lañ ko teg. Mm-hmm. waaye bi yëf yi njëkkee ñëw ci première mois bi dañ ñoo joxe li ñuy joxe. gaa ñuy songaat ko di ko laaj man la njóogu nañ defaat commande. Mm-hmm. nga ni ma ah nañ xaar retour yi. ndax nag liggéey bi noonu lay doxee. Mm-hmm. ñu toog un mois dégguñu kenn man la nañ woote nga ma déet jigéen mm-hmm. jabaru jàmbur wala doomi jàmbur ndax danga ko wanaan ko say ansa ngi ak yooyu. nañ toog. ba yàlla dogal am ñu woote réagir ne yëf yi kat benn pot ba sax mooy doog a jeex mais mi ngi def ay effet. ñu jëlaat ci yeneen alaaji ban kii ngay def commentaire ngay def ci pomade bi la. waa jërëjëf euh, li nga expliqué noonu la yëf yi demee. Mhm. xam nga d'après ni ñu wuteeg ñun. Mhm. du ñu ay businessman. Mhm. parce que businessman ñooy ñi nga xamante ni bii ñoom li ñuy lijjanti. mooy intérêt fu mu nekk xaalis bi fu muy génnee. ñu song ko. di nga gis kenn ku song benn mbir. xaalis ba di génn balaa ñuy fekk gars yi découvrir wuñ fekk xaalis a ngi dugg rek. yoonam ci li nga xamante ni bii mooy li eh, li lii xew. ëllëg si biir leneen am ñu jéggi ko daal di ne ci leneen. Mhm. loo xam ne bii mi ngi génnewaat xaalis. Mhm. wax dëgg fa yàlla depuis que ñu arrêté ko. Mhm. mënoon nañ cee gagné lu baree bari. parce que mënoon nañ ci jaay lu baree baree bari. parce que demande bi bari na. ñi ñu koy laaj kenn xamut nu mu toll ñu préféré arrêté. ginnaaw bi ñu defee commande bu ndaw daal di koy jox ay nit di leen déglu. biñ leen déglu déglu nañ leen lu yàgg dégguñu leen. Mm-hmm. après li ci xew noonu yëpp xew ci. Mm-hmm. te ñun bi ñu defee test ñun gisoon nañu résultat mënoon nañu yem rek ci résultat yi mais nit ñi dañu bari te wuute. Mm-hmm. moo tax ñu doon toog di kii. léegi maman bi ñu waxee ne bon comme que boobu ba nëgë ni pas de nouvelle bonne nouvelle. kon mën nañu commencé waat. Mm. di ko jaay. ci bis boobu yàlla wax na la ci la Aïcha am koo xam ni envoyé na ko. Mhm. audio daal di wax ne moom de wax dëgg fa yàlla. Mhm. jëndoon na ci kii yi waaye macha allah benn boîte bi la jeexalagum mais affaire yi mi ngi ñëw. ñu ne alhamdulilah kon donc war nañu mën a commencé nag euh, delloowaat mbàttu ca. Ndaala mhm. donc looloo taxaat ñu jënd ko fi mu nag. fas yéene nañu ko commercialiser bu baax a baax. Mhm. parce que comme que retour yi ñu ci am. Euh, baax na jox nañ nit mu kii tey nit woo nañu koo xamante ni kii xamuñu ko euh, fii xamuñu ko fële tey ju moom dafa jëndoon xaalisam. Mhm. donc tamit daal di ñëw confirmer ñu loolu. Mhm. donc je pense que ni war nañ ko mën a jaay. loolu daal mooy mbir mi. macha allah kon daal mi ngi ci boutique bi. Euh, comme ni nga xam ni noonu la fi hémorroïde nekkee. ni nga xam ne noonu la fi tamit siti amee ak li nga xamante ni bi moom la ñuy wax euh, néew kàttan euh, nga xamante ni bi kàttan nekk fi ak bi nga xamante ni bi moom la ñuy wax euh, bëñ bi ne fi uh-huh. noonu la fi nekkee incha allah rabi ñu leen di commercialiser ci uh-huh. boutique bi macha allah jërëjëf fan yii yëpp nag ñu ngi doon wax ci hémorroïde bi ak euh, kattan bi waaye tey alaaji siti bi. Mhm. Euh, du ñàkk wax xam naa sax fi ak weer wala wala lu ko yées jombul ak leeral dina ñëwaat ci façon joxinu siti gi. Mhm. waaye siti gi daal alaaji dama gis lool fan yi Baye Assane di la di di ree saa yoo woowee rek nii ah diw kontaan na. Mhm. mu mel nii daal euh, gaañet ñu ngi ciy gis seen bopp. ndax yenn saa ngi gis nit ku jënd si ñëw ni damaa bëggal sama jabar ba yàgg mu ni damaa bëggal sama rakk mhm. loolu nag day tekki ni kon li ngeen ma joxoon man ma jël ko baax na mhm. waaw waaw siti bi euh, alhamdulilahi rabbi alamina mhm. euh, vraiment son bu depuis que xam nga ñun moom yàlla dafa def leen na depuis que ñi nga xamante ne bi ñi ngi jaay suñuy garab muy siti muy émori muy kattan yi ñuy jaay noonu yëpp defe naa ni liñ ci jaay ci ay nit bari na lool. waaye ku ñu ko diingatal waaw wax dëgg fa yàlla gisaguñu ko ñëw ba diingat ñëw nañu seen garab yi demeewut noonu <laughs> loolu nekkut loo xamante ni bii lu ñu gis la mhm. ñii ñëw ñëpp ay ñaan lañ ci teg di ñu gërëm mhm. donc nag ngërëm yooyu nga xam ni ñi ñu koy gërëm loolu day wane rek ni mhm. euh, nit ñi coono biñ daan daj ci bitti loolu mooy li nga xamante ni bi moo tax ñu ñuy ñëw di ñu gërëm parce que am na ñu bari ñoo xamante ni bi dañuy taxaw ne la lii dama koy fecc li dama koy def lii damay def laat dara wéru ci mm-hmm. ay nit ñuy ak ñoom dañuy ñëw fii di ñu ko wax mm-hmm. liñ ñu ci jot ci ay yooyu kenn xamul nu mu toll mais boo ñëwee rek dañ naan la jë bii moom jëndal lekk nga essayé après nga xool dëgg la mais ñooñu wax dëgg fa yàlla ñi ngi ñuy sant di ñu gërëm di wax ni cité bi uh-huh. vraiment la nga ci waxoon xam nga yow moom cité bi yow léegi yow moom ah, da nga ne yow moom léegi soxla woo sax ku lay wax parce que yow da ngaa gis lépp waaw <laughs> la nga xamante ni bi mooy moo ci xew donc loolu je pense que ni loolu preuve la bu xamante ni bii bu wér la. Uh-huh. te it macha allah. Uh-huh. cité bi wax dëgg fa yàlla. ah macha allah mi ngi toj dëkk bi. macha allah waaw mi ngi defar daal mbir yi. waaw du ñu wax mi ngi toj. mi ngi defar mbir yi mi ngi defar mbir yi. aywa waaw jërëjëf alaaji am na solo wax dëgg yàlla cité bi moom nee naa leen sama biir kër mën nañoo seede loolu bu doon dañuy teg ay ojo dañuy teg ba sonn. kon numéro téléphone boobu di 78 426 66 77 am na nag benn waay bu ñuy woo wala as soxna suñuy woo xam naa gaa ñi ñooy juum ci numéro bi woo ko waaye suñu numéro mi ngi noonu di affiché muy 78 426 66 77 mooy numéro bi fii ci Sénégal bu dee France numéro ummi mi ngi noonu bu dee euh, fi nga xam ne mooy Marianne boog laa bëgg wax France bu dee soxna ummi ma nga ca Italie ak euh, ca Maroc ak ca Daxla ak ca Ibrahima mooy numéro yooyu bu ngeen leen ci wooyee euh, daa leen allah Euh, fii ak semaine prochaine wala après gàmmu di ngeen am numéro waa Amérique ak yeneen dëkk yi nga xam ne alaajee ngi waxtaan ak ñoom. Espagne ak yooyu. allah waaw waa Ndiogu. Mhm. Ndiogu photo bi sama ginnaaw Sidi. waaw bi ma gisee photo bi comme ñëpp man mënu ma woon a nattable parce que dafa xaw na lëndam ndax ay fer la ngóor si takk wala ngóor si takkul ay fer. Mhm. moom ka takkul ay fer seen bi mu takk moo noonu. Mhm. ah bi ma jàppee ci kàddoom googu ma dëggal ko waaye daal ba léegi am nañu wax ni. même ngóor si bu dee ceinture la takkit ceinture gi góorewul Mhm. alaaji noo gis façon noo gisee façon feccin mi ak li mu takk ba senegal yëpp ni ay fer la ngóor si takk waaw xam nga euh, góor boo demee ba yëkkati sa mbubb ñu naan takk nga fer ak takkoo fer booba la ñàkk jom dugg parce que ndiggal góor luy nuru fer daf faa wartane bañ naan góor gi fer la takk ak takkut fer loolu rek foofa la ñàkk jom démarré <laughs> mais alaaj da doon rey rey xam waa dafa jaaduwut ndigal góor kay xanaa ndomba waaye bin bin ñu naan diw bin bin la takk buñ demee ba dégg ko sooy bu loolu tey suñ la ko waxoon yow ndigal tey <laughs> xam nga ni yow boo yëkkati woon sa yére nit xalaatut di fa jaaware naan bin bin laak du bin bin le fait que moom fi mu fi mu fi mu nësaxee rek mooy fi mu naan di indi ay justification man du fer lii la booba la dugg ci maanaam kuñ ne da ngaa dof nga naan dofuma di wër naan noo man dofuma booba nga nekk dof wala nga ni ku ñaan da ñaan da dof ngay wër naan non man dofuma c'est que nii naa billaay du ma dof. booba nga dof dof waaw. kon ngóor si bu góor bu demee bañ ñaan ko feram bin bin nga takk muy wër naan non du bin bin da ngeen a kii sentir la laa lële. waaw teg ko fa lële. benn la. kon diggal góor daal fecc mii daal góor góor gu ñuy jaawale naan fera nga caak fer newu ca loolu moom vraiment son bu hmm. gàcca la mais booy bi lu ko teg lii kon lan moo ko dugal ci lii waaw xam nga am na ñoo xamante ni bi euh, interprété nañ ko nu ne hmm. c'est parce que peut-être que ni xam nga booy yi dañoo bëgg hmm. buzz xam nga yow tey peut-être xamoo luy buzz mais booy yi dañuy bëgg ñu di leen tudd ci côté bu ne que ni ñuy wax ci ñoom lu baax ak ñuy wax ci ñoom lu bon yëpp mais nañuy wax ci ñoom. Hmm. loolu la ah. ñuy bëgg. doon nga ko wax ci benn waaw loolu mooy li nga xamante ni bi moom lañu ciy jublu. Mm-hmm. parce que tey boo xoolee réseau yi sociaux yeeg yëpp moom lañ fay partager. waaw di wax ne naan kii ak loolu. loolu pour moom mi ngi marqué ay points. Mm-hmm. ci ay bin bin mais bin bin kenn du ci wut promotion. góor du wut promotion ci bin bin la ceinture la. xaw ma lu mu. waaye daal yow yaay dëggal ndax séentu la wala du séentu la. non moom moo ko wax. waaw moom moo ko wax. yow wóor na ne séentu tool man moom ba léegi xamaguma ko woon waaw parce que ba léegi man xamagu ma man fer la ma gën a nuru. fer la gën a waaw ñaari fer yu tegaloo daal. man la ma gën a kon fere na. lu li am solo. mais da ngaa wax lu am solo alaaji. waaw nga ni ndigal góor bu ko yëkkatee buñ ci gisul ay ndomba. ndomba war nañ caa gis ay fas wala ñoor gu dëgër. waaw waaw ñoor ñoor ñoor gu sax. waaw ñoor nga kii ah man de sama ndigg wax dëgg fa yàlla boo ko boo ko yëkkatee. xam ni boo fa gisul tombé di nga fa gis euh, kii nu mu tuddati fa gis kii boo xamante ne bi dinañ wóor ne la lii moom mbirum góor la waaw. booy dañoo <laughs> noo dañuy booy dañuy foddoo quoi billaay dañoo yem. wallaay wallaay <laughs> billaay dañoo yem. xam naa nag naataangoom biñ koy tooñaleel muy waali. gis nga ni mu inondé internet beeg àdduna ah, bi. waa lool loolu la. Euh, xëy na est ay conseil la ci. soo ah, bëggee percer peut-être la. parce que. Euh, fexeel ba que xam nga peut-être ñu ne bon. Euh, boo seetee. léegi dëkk bi dafa mel ni pap Diouf ni ñu ko daan tuddee. Uh-huh. Euh, mi ngi waaye parce que Pape Diouf nekkul ci angle yooyu. Uh-huh. léegi fi mu toll nii buñ ñaan ay coowal góor jigéen ak coowal uh-huh. lii ak laa. mu mel ni ki nga ne bon naa ci bu takk bin bin fecc. xam nga fecc bi ci boppam mooy wane ni dafa bëgg wane sax moom li tekk ci ndigg li. waaw dëgg la yëkkati yére bi gisoo ko ni muy yëkkatee yére bi. ak wallax wallax ndigam di wallax quand même <laughs> wax dëgg ñaan la bind nga tak waaw ah non mais ba pare koo ci wax nag man la man am naa ñetti gel am naa juróomi gel nañ xam ni góor jigéen dañuy am jabar ak doom hmm. ba noppi di doon góor jigéen nañ ñu dimbali waaw en tout cas nañ góore na yëf di góore quoi dañ bàyyi yëf caaxaan yooyu mi ngi noonu jërëjëf ji waaye jërë ngeen jëf mbokk yi numéro jom kii baa ngi noonu euh, solution 78 426 66 77 bu dee numéro soxna Oumy mi ngi noonu bu dee soxna Mariane mi ngi noonu bu dee numéro Yaya ak ka nekk ca euh, Ibrahima Khalilullahi ma nga ci Italie ngeen daal leen di jot mbokk yi gërëm bu baax soxna Aïcha moo nekkoon ci caméra bi Abdou Top moo doon réaliser émission bi joxante di daje ba après gàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu